am na juróom benn nit yu ñàkk seen bakken am ñoo xam ne itam ba léegi ñu ngi si biir ñu ngi leen di jéem a génne mënuñu génn mu nekk lu métti lool lool lool lool moo tax tey ma ànd ak Pape sama caméraman ñu fa seenee xuus dugg biir xaar yàlla xool li nga xamante ne moom moo fi xew gannaaw jéye jooju nga xam ne fi am démb si guddi vers 11 heures jàpp minuit mu nekk xew-xew bu tiis Pape topp ma ñu daal di xuus dugg biir xaar yàlla kër yi day yàq am fissure ñu xam ne lii màgget na même fekkee ne seen njaboot mu ngi ci génn li ñuy def ak seen njaboot. parce que ñoom dañu ne génn leen génnuñu mais xamoon na ne moom moom moom baaxul kër gi baaxul moom moom génn na léegi nag ñi fi xool ñi fi nekkoon léegi ñu ñoo fa des parce que lan amuñu amuñu néeg néeg yokku nañ ko yokku nañ ko léegi nañu def toog man man jàpp naa ne xoolal sa bakkan xoolal boo amee néegu xoolal néegu barak boo tëdd toog fa moom moo gën nga nga bëgg affaire luxe pour pour ñu ne yaa ngi dund dund ba neex ba tabax ba tax ngay dëkk ci ay tabax yoo xam ne nii ah rafet na. mu màbb sa kaw ci yow la parce que tey kër day dem ay fissure màgget lool lool lool lool gars yi xoolal borom kii borom borom kër gi dañuy def màbb ñu ko day jéem a di ko di ko di ko maanaam maanaam di di dabadaaxe di dabadaaxe defar ko nii taf tafee ko nii pentu ko ba mu rafet nga yaakaar ne yow lii moom dëgër na rafet na nga dëkk ci du yàgg tuuti xol mu màbb parce que man fii laa jóge woon ci dibiteri awsa bu nekk fii mooy dem sama gaale romb naa lépp tout va bien lépp nice quoi comprendre bu ñu demee bu ñu demee ba ma rombee sama gaal ma maa ngi tëj sama nekk ba ma déggee kën si la croix bi coupé man dama yaakaar noonu BRT yi parce que ñoom dañoo jege fii parce que ñoom déjà suñuy def seen travaux yi dañuy déranger affaire kërë kërë yi xam nga ñun loolu lañ ko yaakaar woon quoi mais ba ma déggee ba ma déggee waa koñ bi di yuuxu après si la automatiquement si laa génn ba ma génnee mën na leen lan la ñu ne ma kër gi moo daanu ma ne leen kat si nan la nan la daanoo après si laa defee ñëw ba ma ñëwee ma dégg sama benn rakk du jooy bu ñu tudd bu ñuy wax Moussa mi ne ma Aliou moo ñu ci biir comprends nga automatiquement waaw automatiquement man si laa yéegee ci kaw dal bi mais si kaw dal bi mu boo yéegee maa ngi gis maa ngi dégg maa ngi dégg ay un waaw maa ngi dégg ay un mais mënu dara comprends nga mais après si lañ jàppee fii génnee fi liir bi yaay xale bi si la génnee ak keneen comprends nga liir benn liir lañ fa génnee liir bi ñu ñoo ko génnee waa jëkkëram moom foog naa dundootu la ah.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 police defar na périmètre de sécurité euh, ñi nga xam ne également ñooy structure de santé yi mobiliser leen ci guddi gi ñu ñu mobiliser seen i ambulance ubbi seen i bunt ba yi nga xam ne jëlee nañ leen fii ñu yóbbu leen foofu ñu jël leen en charge donc ñuy euh, saluer liggéey boobu di wax ni également les privés ñi nga xam ne ñoo ay entreprise ci zone bi indi nañu seen i moyens jox ko sapeur pompier yi ñu bokk ci liggéey bi mairie bi itam macha allah taxaw na fi nga xam ne fa la ñuy xaar mairie. ministre bi yemul ci loolu mu ni directeur de cabinet ànd ak général bi nga xam ne mooy commandé sapeur pompier nañu ñëw teewal ko fi ba liggéey bi sotti donc bi ñu yaakaaree ne nag nii nii nii sotti na daanaka sotti na parce que xool nañu xoolaat mais xool baa ngi puus mën nañu wax ni am na fukki nit ak ñaar yu nga xam ni am nañ ci ay gaañu gaañu. fukki nit ak benn yooyu ñu ngi ci structure sanitaire yi kenn ki moom fii lañ ko fajee ba mu dem yoonam waaye nag malheureusement am na ci juróomi nit ñi nga xam ni ñàkk nañ ci seen bakkan ñu jël seen corps yooyu mi ngi ci mi ngi ci structure yi nga xam ni service dédié et ñu leen di ñaanal suñu borom xare leen àjjana mu doon également fi nga xam ni war nañu mën a ci turu ministre de l'intérieur mais également et surtout ci turu président de la république présenter condoléance su gouvernement bi yëpp gouver euh, condoléance njiitu réew mi gouvernement bi ak son chef muy monsieur Amadou Ba le miss de l'intérieur ak l'ensemble du gouvernement di mastawu njaboot yi di wax ni nag euh, bu lii weesoo liggéey bi nga xam ne tàmbali woon nañ ko ci wàllu gestion des bâtiments menaces en ruine euh, ca nga xam ni ñi ngi koy suivre jaadu na léegi ñu mettre ko en application gannaaw bi nga xamee ni sotti na dañoo woo pour benn bâtiment bu daanu juróom benn minute après engins yi njëkk yi egg nañ sur les lieux liñ fa gis mooy benn bâtiment bu ñu doon defaraat benn côté bi yëpp daanu donc ñetti étage yi bi ba tey à treize heures c' est dix sept victimes douze yi c' est des blessés onze yi évacué nañ leen kenn ki faj nañ ko sur place gis nañ également cinq corps sans vie mooy ñi nga xamante ni seen proches yi ñoom ñoo ñu ko déclaré woon donc gis nañ ñëpp ñi ñu déclaré woon ne gisuñu leen mais n'empêche opération yi dañ koy continuer parce que il faut ñu dindi gravaay ba egg ci plancher bas bi pour mën a pour mu wóor ñu ne information yi ñu amoon concernant les personnels yi nekkoon ci bâtiment bi c'est fiable donc pour cela police dina continuer di ñu sécuriser def benn périmètre de sécurité. même boo amee kër boo loué tamit ñàkku na yow loué nga wala nga am mbokk bu loué nan nga gisee location actuellement nii jamono ji fi Sénégal. location yi il faut mu demee nii parce que yow tamit pour nga tabax dafa cher loolu mooy problème bi xam nga loolu loo indi affaire bi mais location bi ak construction yi ñaari affaire la yoo xam bokkul. xam nga fii c'est parce que dafa amul contrôle rek mais bu amul contrôle mi ngi noonu parce que kër gi dañ ko doon réparer mais est-ce fa nekk doy na yooyu yëpp moo ci nekk. ouvrier dama dégg ne daanu na ma ñëw. mais bâtiment yi souvent li koy daaneel bâtiment yi ñuy réparé la parce que bâtiment bu def cinquante ans quarante ans mu wóor ne bâtiment bi baaxatul fer bi yàqu na nga jël maçon boo xam ne amul expert mu ñëw soit dañuy laal poto yi wala ñu laal poudre yi wala ñu laal fu ñu warut a laal bâtiment bi dafay daanu et puis bi amul duñ dem bureau de tidd bâtiment yi duñ ko contrôler dañuy fay nu leen neexee deuxième fois duñ am autorisation wala koo xam ne day wut autorisation ne deuxième étage lay def ñu calculer ko juste deuxième étage mu calculer location bi neex ay nekk cinquante mille soixante mille muy teg di dem te bâtiment bi àttanu ko parce du am du am du def du ñu calculer suuf ndax àttan na ko du ñu calculer poudre yi parce que d' abord ñaari boo demee bu dee si kaw wala asalem bu lay tabaxal bu la jaayee premier étage bu ñu la defal escalier ci kaw c'est juste premier étage dañ lay jaay moom lañ la calculer faire mais da ku jënd ëllëg mu teg quatrième conséquence loolu moo koy indi da ngay loué muy neex ngay teg di dem di si ay cinquante mille cent mille di amul contrôle bu daanoo ña fa luwee ñooy am problème borom kër yi duñu am problème ña fa luwee conséquence bi si ñoom lay doon 90 bâtiment pour cent yëpp yi daanu Dakar mosoo dégg borom kër dee na ci locataire bay dee te ñoom xam ne te bu ñuy defar dañuy defar kër gu assuré ñoom kër yi ñuy dëkk day assuré mais dañuy war a contrôler kër yi contrôler bâtiment yi contrôler fer bi dinañ am autorisation mais dañ lay defloo bâtiment plan defar autorisation bi ba pare bu ñu ñëwee ñun ouvrier ñun la ñuy tabax autorisation bi la mu leen defal wala plan ñoom dañ koy modifier mais ñi fay jaar di contrôler ñoom dañu war a waxal ñaata bureau de fi nekk bëri na pourquoi bâtiment yi daanu état bi wax leen ak état bi. mais faute bi si kan la nekk. si ñuy dëkk si kër yu màgget yi wala si. état bi ko xam nga commerçant wala ki nga xam ne xamul bâtiment ki xamul bâtiment boo koy luyee karale bâtiment bu bees raax pent lan wax na bâtiment bi assuré na non kooku day luyee rek kooku xamu ci dara conséquence bi mais état bi moo war a jàpp ña fay bu ñu koy tabax ñu contrôlé ko faute bi moom kii tabax. kii lu ye nga won ko kër gu rafet karale ko raax peinture xamu ci dara sa wax dëgg yàlla yow xam nga bâtiment bu assuré bu assuré wul xam nga man li ma ci xam yow xamoo ko ci mais xamoo ko ci ñun ñun ñu ngi liggéey bâtiment yoo xam ne ñun tey di gis bâtiment yoo xam ne wóor na man tey Dakar fii pile deux cent bâtiment yoo xam ne dafa war a daanu état bi moo ko war a daaneel mais duñu fi bàyyi ay baadool di fa dëkk di dee ay responsable ay boroomi kër noo ci état bi la non ci état bi la bul wax non état bi moo war a contrôler yaa ngi tabax bâtiment chaque une semaine ñu ñëw contrôler. yow est-ce que gisoo ni borom kër gi ci boppam moom la ñu war a. non borom kër gi du ci moom ci état bi la état bi moo war a contrôler déggoo li ma la da ngay dem ñu jox la autorisation de construction bu leer nga ñëw na maçon bi defal ma lii maçon bi ne leen lii la la code bi wax nga ne ko defal ma lii modification ci boppam bu ñu koy defar am na kër yoo xam ne waruñu ko modifier dañu ko war a daaneel parce kër gu def cinquante ans fer bi yàqu lépp yàqu. état warul maire yi sax warul la jox autorisation de démolition dafa la war a kër gi mais maire yi nan la ñuy liggéey est-ce que ñoom ñoo fi dee borom kër gi du fi dee baa doole yi ñoo fiy dee ku bàyyi sa njaboot ñëw wut pour loo am rek ñoom ñoo fi dee mais problème bi état bi la bâtiment bu ñu koy liggéey dañ ko war di contrôler mais ñoom point yi ñuy liggéey ak liggéey yu baax yi liggéey dañ lay koy contrôler ana véritas luy seen jar nan lañ leen di fayee soxna yi yooyu itam yaay ñu fekk la si gannaaw gi nga xamante ne Euh, ay sénégalais ay nit yu fi dëkkoon ñoom ñoo ñàkk seen bakken en tant que waajur boo xamante ne ni euh, da gis peut-être ku luwee wala genre nan ngeen yëgee xew-xew bi nga xam dafay faral di am Sénégal kaa yu mel ni di faral di fi am. ah ku nekk ndax fi mu nekk nii dëkk bii luyaas yi dafa metti dangay fekk ku tabax koro peinture rek ñëw na la kaay te loolu jaaduwul ndax fi mu nekk jigéen ñi ñooy fay luyaas. kon ku nu yërëmul ñu yërëm sunu bopp waaw man nag damaa man la wax looloo tax. mais yaay dama gis ne yu mel nii saa yu amee ñun ñun néew di doole ñoo si ñàkk suñu bakkan est-ce que bëgg a dëkk jar na aussi nga dëkk si kër gu am ay fistule ak yooyu yëpp tey nga ñàkk sa bakkan nga perte dis perte les rek. déedéet ndaxte ñoom mën nañ kaa defar ba mu rafet rafetaay boobu yow nga defee ne baax na boobu ba baaxul loolu la loolu moo ñuy rey waaw loolu la. bu buñ la korolee peintural na mu rafet nga nekk kër ga baax na ndax xam nga jigéen ay koro rek la bëgg loolu la nga dal di dem dal di dëkk loolu mooy indi musiba bi waaye yal nañ ci yàlla génn ci barke sëñ Babacar Si jaageen jëf amiin mu ngi noonu ba tey ñu wéyale rek euh, riverains yi nga xam ne ñu ngi fii ah di seetaan mu nekk xew-xew boo xam ne yaakaar naa ku nekk war na si mën a wax parce que ku ko dundul itam am nga mbokk bu ko dund wala dara mu nekk loo xam ne lu métti la si euh, ñu gis li xamante ne moom moo xew fii si euh, fii nga xamante ne mooy xaar yàlla nan ngeen koy dundee en tant que ay sénégalais. dafa métti trop vraiment parce que ñun démb dañuy taxawoon fee ñu ngi woon liggéey ma après mi laa dégg affaire bruit bi ay yooyu noonu léegi bu ma ko yaakaar oto daan ci kaw yooyu noonu ma ne vraiment moom. après ñëwee laajte gars ma ne la moo xew ñu ne ma bâtiment moo daanu ma ne ah c'est dommage quoi après laa dugg si biir restaurant ma laajte gars yi ne am na bâtiment bu daanu après la gars yi génne dem xool ay yooyu noonu wane démb heure bi am noonu presque mi ngi am ay zéro heure comme ça. xam nga dafa métti quoi vraiment parce que bu ñuy waxee bâtiment moo daan ay nit ñoo fa nekk bon affaire bi dafa triste parce que man de bu ma ñibbee après nekkuma en l'aise tellement affaire bi dafa nekk sama biir bopp ko parce que dafa métti mais yàlla baax na daal ñu ñaan yàlla jàppale ñu si jaam billaay affaire bi vraiment mun ma ci wax dara quoi lu du daal. yow da nga ñëw danga nga jékki dégg lu de ding. Ah, daanu waaw dama déggoon affaire bi daanu vraiment après bu ma déggee après laa laaj ci gars yi fee nañ ñu ne ma am na bâtiment bu daanu après laa dugg si restaurant bi ba ne gars yi am na lu daanu de ñu ne ma lan la ñu ne ma ah, dégg naa ñu ne bâtiment moo daanu ay yooyu noonu wane ay nit ñu ngi foofu noonu wane bi woon dara taxaw foofu noonu di xoole quoi du yoon quoi war nañu jàppale nit ñi quoi ñu xam affaire moom at na bi amul solo quoi ñu jàppale locataire yi nga xamante ne ñëpp mooy loolu dañu ñëw dox daje fii de Sénégal la ñuy nekk quoi Sénégal ñu ñëw bokk nekk bàyyi war ne war nañuy jàppale ñu ñëw en tout cas bon loolu laa lu ma ciy wax waa à part loolu moom aw ma dara lu ma ciy wax daal lu genre affaire bi daf mi trop loolu kese la baggan waaw yi mooy loolu parce que dem benn bébé moo ci génne ak yaayam ay yooyu noonu voilà Pape gis nga mu ngi nii ah ba ñu ngi continuer di daaneel bâtiment bi parce que li nga xamante ne moom moo fi des moom la ñuy jéem a daaneel gis oto yaa ngi noonu du dugg si biir Euh, poussière na kenn mënul am accès si biir ah mu nekk loo xamante ne lu doy waar lool loolu la. waaw damaa am mbokk fii doom sama tànt bi moom moo fi nekk. waa ci kër gi daanu léegi doom sama doom bi moo ma woo mu ne ma sama tante bâtiment bi dafa daanu ñoom sax ñu ngi doon waaj a génn ut pour dem far yëf yi dal na noonu mais metti na torop na mooy fu mu nekk nii gouvernement bi nañu wax ci borom kër yi ñi nga xam ne màgget nañu. mais seulement tamit ñun tamit locataires yi ñoo dëgër bopp léeg-léeg dañuy naan ñi génn mais lu ñu nàng def ñu naan amuñu amuñu amuñu ba ndogal yàlla fekk leen fa waaw loolu. moom ñaata at la fi def ki nga xamante ne moo fi dëkk sa mbokk. moo xaw ma ñaata at la fa def daal yàgg na fi tuuti waaw. moom anamu. moom laay jéem a woo nii pour xam ndax muy dund na am déet. ndax na yow xamagoo ndax moom sauvé na wala. léegi nii lañ ma woo comme ça ma ñëw damaa wàcc liggéey rek ma egg si fii waaw. ak kanam ñoo fi nekkoon. moom ak doomam yi waaw. yal na leen yàlla sauvé. amiin amiin amiin amiin amiin. voilà mu ngi noonu. merci beaucoup. mais ñu gis ne yi day faral di am nag Sénégal léegi kër yi nga xam ne day daanu ñu ñi di si ñàkk seen bakken yu bëri parce que ñu ngi for si wéw béy ne am na ay juróom-benn nit yoo xam ne ñàkk nañ seen bakken loolu nag moom dafa jaru jaru ko parce que bakkan moom dafa metti torop dafa metti nga jëkki-jëkki benn fan surtout heure bu mu daanu nii xam nga ñu bëri day nekk di nelaw sax waaw muy noonu dégg ngeen ki nga xamante moom moo fi nekk moo tax mu ñëw fii taxaw di ko woo boobu ba ko si ñu na ko yàlla boole si ñu mucc ndax mook doomam tam ñoo fa nekk lu si mënti am daal pape bi fi doy na waar gis ngeen soo bi mu amee démb si <coughs> ngi fi surtout tey si suba gi ñëpp ñëw fi gis ngeen gouverneur li nga xamante ne moom la wax ak ki nga xam ne mooy commandant bi yoroon opération bi ak riverain yi ñoom ñëpp ku si nekk am nga si sa euh, kàddu goo xamante ne yéy nga ko si yàbbi ndax dafa faral di doon ay xew-xew yoo xam ne day am lu bëree bëree bëri ñuy ñaan rek yàlla nit ñi gën a bàyyiwaat xel si dëkkuwaay yi parce que nit ku nekk fa nga dëkk mooy sa sutura mooy sa teraanga waaye boo dëkkee tamit si béréb nga dema dema dem ba mu doy waat boo fa dëkkee ba ñàkkee sa ni yaakaar naa amoon na fi rek la ñuy wax ndax faral nay faral di am ay kër yu daanu kon nañu bàyyi xel si bu baax baax kër yi nga xam ne màgget nañ ñu jéem leen a daaneel balaa bakken di si ñàkk ndax ñàkk alal moo gën ñàkk bakken di jaajëfal ñëpp ki nga xamante ne moom mooy coordonné émission bi ñoom Papis Mbaye Pape Mendy ñoom ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal Pape Diop si caméra bi Lamine Mbengue si montage bi jaajëfal naa leen bu baax a baax rendez-vous bu am si biir réew mi ñu ngi leen di jaajëfal a baax.